ci bés yooya mbooloo mu rëy amaatoon na te amuñu woon lu ñu lekk noonu Yeesu woo taalibe ya ne leen yërëm naa mbooloo mi ndaxte toog nañu fi man ñetti fan te amatuñu lu ñu lekk su ma leen yiwee ak seen xiif dinañu tële ci yoon wi ndaxte am nañu jóge fu sori taalibe yi tontu ko waaye fii alub neen la fu nuy jële lu doy ngir dundal leen yéesu laaj leen ñaata mburu ngeen am ñu ni ko juróom ñaar noonu yéesu sant mbooloo mi ñu toog ci suuf mu jël juróom ñaari mburu yi sant yàlla damm leen jox leen taalibe yi ngir ñu séddale leen mbooloo mi taalibe yi def ko amoon na fa it tuuti jën yu ndaw yéesu jël ko sant yàlla wax taalibe yi ñu séddale leen itam mbooloo mi noonu nit ñi lekk ba suur ba noppi taalibe yi dajale juróom ñaari dàmba yu fees ak dàmmit yi ci des ña ko fekke nag matoon nañu ñeenti junniy góor bi ko yéesu defee mu yiwi leen daldi dugg ak taalibe ya ca gaal ga dem ci wàlli dalmanuta noonu farisiyen yi ñëw di werante ak moom ñu fexe ko fiir ba laaj ko kéemaan gu jóge ci asamaan tey firndeel yonentam waaye yeesu bind ci xolam ne leen lu tax nit jamono ji di laaj kemaan ci dëgg maa ngi leen koy wax duñ jot genn kemaan ci kaw loolu yeesu bàyyi leen duggaat ci gaal gi di jàll dex gi taalibe yi nag fàttewoon woon nañoo yóbbaale mburu te amuñu woon lu dul benn mburu ci gaal gi noonu yeesu artu leen ne wattu leen te moytu lawiru farisiyen yi ak ñi far ak buur bi erod taalibe yi nag daldi werante naan nun di indiwaale wuñ mburu waaye yeesu yëg loolu ne leen lu tax ngeen di werante ci li ngeen indiwaalewul mburu xanaa gisaguleen te xamuleen ndax seen xool dafa fat ba tey ndax ay gumbaay njàccaar ngeen te seeni noppu naqari xanaa fàttalikuwu leen bi ma demee juróomi mburu ya ngir juróomi junni ña ñaata pañe yu fees ak ay damit ngeen ca dajale woon ñu tontu ko fukk ak ñaar yeesu neeti leen te bi ma demee juróom ñaari mburu yi ngir ñeenti junni ñi ñaati dàmba yu fees ak damit ngeen dajale woon ñu ne ko juróom ñaar noonu yeesu ne leen ndax seen xool dafa tëju ba tey ginnaaw loolu ñu ñëw ci batsayda foofa ñu indil yeesu ku gumba di ko ñaan mu laal ko yeesu jàpp loxo gumba gi yóbbu ko ba génn dëkk bi mu def tiflit ci bëtam teg ko loxo naan ndax gis nga dara waa ji xool ne ko gis naa ay nit ñu mel ni ay garab te ñu ngi dox kon yeesu laalaat bët yi gumba gi ni xefeet daldi wér ba gis lépp bu leer ci kaw loolu Yeesu sant ko mu ñibbi ne ko bul dugg ca dëkk ba bi loolu amee Yeesu ànd ak ay taalibeem dem ci dëkk yi wër sesaare bu Filip bi ñuy dem nag mu laaj taalibe yi nit ñi lu ñu wax ni man moom laa ñu ne ko am na ñu ne yaa di Yaxya ñeneen ne iliyaas ñi ci des ne yaay kenn ci yonent yi noonu yéesu laaj leen yéen nag ku ngeen wax ni moom laa piyeer tontu ko yaa di almasi bi ci kaw loolu yeesu dénk leen bu wóor ñu bañ koo wax kenn booba yéesu tàmbale na leen xamal ne doomu nit ki war naa sonn lu bari njiit ya sëriñ su mag sa ak xutbakat ya dëdd ko ñu rey ko mu dekki ci ñetti fan noonu mu xamal leen mbir mi ba mu leer nàññ bi ko piyeer déggee mu woo ko ci pegg daldi ko yedd waaye yeesu geestu gis yeneen taalibe yi mu daldi yedd piyeer ne ko sori ma saytaane yëfi nit ngay fonk waaye du yàlla noonu yeesu woo taalibe yi ak mbooloo mi ne leen ku bëgg a topp ci samay tànk na bàyyi boppam te gàddu bant bi ñu ko war a daaj door topp ci man ndaxte koo xam ne bëgg nga rawale sa bakkan dinga ko ñàkk waaye ku ñàkk sa bakkan ngir man ak ngir xabaar bu baax bi dinga ko jotaat ndaxte moom àddina sépp lu mu jariñ nit bu ñàkkee bakkanam te nit lu mu war a weccee bakkanam ku ma rus a faral te nanguwul samay wax ci kanamu nit ci jamono jii ñi fecc seen kóllëre ak yàlla te topp bàkkaar doomu nit ki dina la rus a xam bés bu ñëwee ci ndamu baayam ànd ak malaaka yu sell yi